dali nag jàmm ñu ànd xëy yër ka yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo wolof njaay nee na yéene nekk boroom moo say fanaana yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy du ñu xamal lan ñu dafa mel ni nag Occident yi ñoom yéene wuñ africain yi jàmm ci li nga xamante ni moo jëma ci jàngoroy coronavirus ji ndax sax ñoom dañoo njort ne daal jàngoro ji à tout moment mën naa faagaagal li nga xamante ni maanaam moom mooy Afrique ndax nag secrétaire général bu Nations Unies ak centre d'analyse de prévision gestion stratégie bu France ñoom ñëpp daat na ñuy wax ne jàngoroy coronavirus ji mën naa faagaagal ñi nga xamante ni ñooy africain yi maanaam xajul ci africain yi maanaam dey jamono jooje nag fekk na réew yi nga xamante ni ñoo nekk ci àdduna bi doon ngand ngandlu doon fëgg seen dënn ñoom ñëpp coronavirus bi dafa wane ne duñu dara ndax da leen a caxte caxte jamono ji sax mën nañoo jàpp ne ñi nga xamante ni ay réew yu mag lañ ci àdduna bi maanaam nag seenug tële ci seen wàllug wér gi yaram ma coronavirus bi daan na kay feeña ña la ndax amul benn réew bu mag boo xamante ni ma ngi ci àdduna bi bu dékku nag li nga xam ne mooy jàngoroy coronavirus ji ñoom ñëpp tele na daal di nërmee la la te moo ne day jamono joojee nag Afrique moom ma ngi daal di fagaru yenn ci ay réew def confinement yeneen yi nag def couvre-feu moo ne day Afrique bu ñu ko xayma li nga xamante ni moo fi amaguna kane jàngoroy coronavirus lépp bi ñu ko xayma cinq mille quatre cent la ñi si faatu toll ci cent trente et un te moo ne day réew yi nga xamante ni ñoo nekk ci àdduna bi bennum réew rek la nga fay dégg ci ay nit ñu ko fa amee maara day tali ña nga xamante nag ñoo sa faatu maanaam limba moom kenn mënu koo daal di xayma te jamono jooju nag ñoom ñi nga xamante ni ñooy Occident yi ñoo ngi wéy dal di wax ne Afrique mooma jàngoro ji à tout moment mën na koo faagaagal maanaam fan la ko daal di tekk ci la yéen a kaay consulting bi daal xëy tey yéen a kaay gii de Le moom tim daal di xëy ci benn weer bi nga xamante ni jàngoro coronavirus ji bi mu duggee ci réewum Sénégal ak léegi daat nay wax ne juróom ñii daal maanaam ñoo taxaw ci kanam juróomi kàngam yi Abdoulaye Diouf Sarr professeur professeur Moussa Seydi docteur Abdoulaye Bousso professeur Beye Alpha Sall bu institut Pasteur journal bi dañ ñii daal en tout cas ay vainqueur la ñu yéen a l'observateur mu ñu xamal naan ñu jàngoro coronavirus ji en li am ba des yàq ci réew mi daa dinay bari su dee nag LONASE maanaam loterie nationale ñoom nag nee nañu bis bu yàlla sàkk danañu ñàkk lu toll ci cent millions bi nag ci Sénégal dina tax Sénégal ñàkk lu toll ci deux lu toll ci ñoo xamante ni maanaam wàllum tourisme yéen a kaay gii de la turbine mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des daal mooy jàngoro entreprise yu bare bare ci biir réewum Sénégal grand place yéen a kaay moom mu xëy yóbbu ñu ci société bii di Satrec maanaam Satrec lu toll ci soixante personnes yoo xamante ni dañu leen a daal di dàq ba pare daal leen di wax na leen nag maanaam da ngeen koy nangu wala ngeen dem tribunal enquête yéen a kaay mu ñu xamal lan ñu doomu réewum Sénégal xam ne ñoo faatu ci Italie te jàngoro coronavirus daal lu toll si ñetti fan ñu daat leen di jëli lu mooy loolu rek dañu leen di dajale daat leen di taal laas yéene kaay mu ñu xamal laan ñu jàngoroy coronavirus ji daan nay dugg jamono ji nag ci région bu Tamba ak région bu Kolda réew mi quotidien mu xëy dikkal ñu ci aide alimentaire bi nga xamante ni jamono ji Macky Sall ma ngi ci xar tànk tuba yama lu toll si juróomi junni ci ay tonu ceeb la Macky Sall di jënd ak lu toll si juróomi téeméer ci ay tonnes yoo xamante ni suukar lay doon ak yeneen yoo xamante ni daan na say aju lépp daal bi ñu ko xayma lu toll si juróom ci ay millions doomu réewum Sénégal yoo xam ne danañu daal di jot ca boobu leen ndimbala yéene kaay groupe promo consulting bi moom nag mu daal xëy ne jàngoro coronavirus ji nag dafa mel ni mbir mi nag xel mën na see daal di dal ndax ni ki démb juróomi kaa la ñu daal am ak fukk ñoo xamante ni daal di nañu si wéra yéene kaay gii de la témoin ñu fekk fa docteur Abdoulaye Bousso moom nag nee na lu jëm ci wàllum jàngoro coronavirus ji semaine bi nga xamante ni daal moom la ñu ba xam mbir mi nag maanaam a baax Camara mi nga xamante ni mu amee woon jàngoroy ji te ñu teewoon ko ci caserne Samba Jéeri Diallo te mu dawoon moom nag daat nañu koy jàpp faj nañu ko ba mu wér daat nay nettali ana lan moo taxoon mu daal dawa yéen kaay gi la Soleil ñu fekk fa professeur Moussa Seydi moom nag daat nay wax ne Nivaquine bi daal daat nay am solo ndax ñi nga xamante ni daal amee nañu jàngoroy coronavirus bi ñu leen ko joxe gis nañ ne gaaw mi quotidien mu ñu xamal nañu en tout cas daal fagaru moo gën na njaboot yu bari yoo nii dem nañ ci marché yi jënd dund gu baree bari daal di koy denc ci seen kër yi yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal naa ñu kër Massar ñoom dafa mel ni bul faale la ñuy dund jàngoroy coronavirus ji dafa mel ni yëngalu leen ndax kër Massar pëccëxoo gi maanaam embouteillage bi regroupement bi maara day taali ñoom sax dañoo mel ni lu fàttali nga xam ne maanaam moom mooy virus bi yéen a kaay gii de la témoin ne couvre-feu bi nag am na benn incohérence ndax nag couvre bi daal dafa mel ni moom virus bi guddi daal lay génn bëccëg gi moom du génn yéen a kaay Quotidien daal nay xëy dikk ci fête de l'indépendance bi ak ni nga xamante ni moom la ko Macky Sall fas yéene doxale moom ak armée bi yéen gii di libération xëy nag ci bateau Grimaldi bi nga xamante ni moom la ñu wax ne moo sëfoon drogue te ñu jàppoon ko ci waax yu Sénégal daat leen amande lu toll ci juróom benn ci ay milliards daat nañ koy fay daat nañ leen di teggi loxo yéen a gii di record ñu fekk fa nag waa Liverpool ñoom nag nee nañu daal wax waxi Sadio Mané jël ko yóbbu ko Real Madrid jamono ji sax maanaam lu ñuy waxtaanee nekkul sax ci seen xel